Euh, bonjour, bienvenue de, sur votre flash d'information euh, du mercredi euh, 15 novembre 2023 euh, ñun ñu rek si lu gën a fës si xibaar yi bokk na si transfert bi nga xamante ne transféré nañ ko Ousmane Sonko euh, à la prison du Cap Manuel euh, sur la demande de son médecin traitant selon l'administration pénitentiaire donc administration pénitentiaire jàpp nañ ne moo ne Ousmane Sonko médecin traitant bi moo ko demande moo demandé à ce que ñu transféré ko au niveau de la prison de Cap Manuel donc depuis démb Ousmane Sonko mu ngi foofu noonu si euh, prison Cap Manuel pour euh, recevoir euh, ay soins mais du trop par aussi ay avocats am avocat Ousmane Sonko contesté nañu contesté nañu boobu transfert ndax suñu sukkandikoo si xibaar yi ñoom d'accord wuñu si si si transfert boobu nga xamante ne def nañ ko ki nga xamante ne mooy moom Sonko. ñu continuer rek si Ousmane Sonko avocat aussi porte nañ plainte ki nga xamante ne. porte as joxe nañu benn sitation directeur nga xamante ne moom mooy Thiendella Fall mooy directeur de les élections ñu ñëwaat rek si Ousmane Sonko si euh, beneen fànn donc ñi nga xamante ne ñoom ñooy avocat bi avocat bi envoyé nañu benn citation directe à Thiendella Fall Djibril Dalla Fall moo nekk direction des élections euh, pour euh, ñàkk participation bi nga xamante ne Ousmane Sonko euh, nar na ko ñàkk participer wala participer bu ko si parrainage yi. donc ñoom réclame nañ le PASTEF léegi suñu ja sukkandikoo si xibaar yi le PASTEF réclame deux virgule cinq milliards de francs CFA à ki nga xamante ne moom mooy Djibril Dalla Fall le directeur des élections ñu continuer toujours rek si xibaar yu gën xibaar yi xam ngeen ne Macky Sall mu ngi def tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolak, euh, euh, Kafrine et Fatik. donc euh, démb mu ngi woon Kaolack mais su lu ñu jot a jàpp si tournée économique boobu euh, au niveau de Kédougou def na foofu ay inauguration normalement benn tronçon boo xamante ne relais na Salémata euh, Kédougou aussi am na benn poste de première pierre bi nga xamante ne def nañu ko suñu sukkandikoo si xibaar yi bokk na li nga xamante ne moom mooy désenclaver la région de Kédougou comme ni ngeen ko xamee de investir nañ foofu un montant de de de six cent milliards de francs CFA mu nekk programme d'investissement investissement d' investissement boo xamante ne dina dem si euh, deux mille vingt quatre euh, euh, deux mille vingt six. ñu ñëw encore rek si bopp xibaar yi ñu wax impôt si Benno Bokk Yaakaar ñu ne daal am na fond bu fa am si ñoom seen biir ndax daanaka boo leen ñu ngi sukkandikoo si yenn kaay yi ñoom si seen biir wóoluwantewuñu donc ñu ku nekk daal yaa ngi soupçonné sa moroom donc mu nekk loo xamante ne lu doy waar la donc à l' approche des élections donc ñàkk juboo boobu ak. Euh, xiiroo boobu ngaayoo boobu nekk seen diggante dina nekk loo xamante ne vraiment lu xaw a doy la pour seen pour pour pour ñu mun a continuer wala pour ñu mun a ànd nekk benn nekk dem si élection yi. ñu ñëw encore si euh, si si si Déthié Fall bi nga xamante ne moom mooy mooy présidentielle la bokk démb mu ngi doon def benn point de presse euh, moom xamle na ne daal moom arrêté na li mooy na ne euh, a atteint son le moom dem na ba trois mille cinq na daal dafay arrêté daal li nga xamante pour mun a jublu si li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle donc ki nga xamante ne moom mooy comme ni ngeen ko xamee moom arrêté na euh, li nga xamante ne moom mooy euh, parrainage yi. Euh, li moo gën a fës si si xibaar yi. mercredi 15 novembre 2023 ñu leen di jaajëfal bu baax si teewlu bi ñu leen di jaajëfal bu baax si teewlu bi te di leen yendu si.